What up guys, what up guys, what's up everybody, so I'm a guy. <laughs> yeah, before going faster, allow me to introduce myself again. I go by the name of Malachon and I'm from Senegal, West Africa, Rio City, my town. <laughs> Come your Pub Kuma ñoom Pape Dieye Ibrahima Ndaw Come on, man. I'm Kumba damn Amadou Dame Diagne Modou Fall Omar Fall borom sikkim bu ñaaw bi jongo ñaaw gars yi bëggee Malachon TV yëpp ay gën Thiès from UK ak gaaru Black Master Emos Demo diga bay béy ñëpp ba sama gars yi tey li ma wax nii man j'ai dama gëj wax suma wasila muy muy Sonko xam Sonko moy suma wasila donc mom chaîne bi moom sama ma ñëwee dégg Sonko rek bu jaar quoi yéen am seen foog may wax ci mom quoi tu vois. donc tay tey li may wax mooy ñëpp óolu na óolu na Sénégal yëpp ni Sonko moy tay ji mo nekk en ah, pole position pour nekk le pour nekk le prochain président du du Sénégal quoi Sonko mo tok en ah, pole position moy xeeñ quoi su pexee nee ni pexe pexe nee ni bu jubul Sonko moo tax nekk président su fekkee suñu président bi moom deful comment dirais-je troisième mandat forcé ko barrage parce que Côte d'Ivoire mooy ko bàyyi Sonko moo doon président. donc loolu nag jàngat ma sa jàngat mooy loolu c'est la mort des des des politiciens quoi en quelque sorte parce que Sénégal mooy dëkk boo xam ne 365 jours 12 euh, mois sur 12 7 jours sur 7 on ne parle que des politiques politiciens yi liggéeyuñu goyuñu goruñu xëntuñu ñoo yam ay milliards si kaw ñuy liggéey.

jóge université fraîchement ya. tay jii immeuble la yor da ngeen Abdoulaye Wade dafa romb sax immeuble bu koy taxaw ko koy tabax ñu ko far ba mu ne arrêté tu vois parce que vraiment politique métier le Sénégal té avec Sonko bu ñëwé eh, ça sera leur mort motax ñom tay ji bëggu ñu Sonko falu parce que kuy wadoo làmmiñ bu noppé raf tu vois mais la Sénégalais ñom ndax conscient na ci est-ce bëggu ñu défa bëggu ñu défa dëkk bi def comme ay France ay Europe pays pays yu mature yi nga xam ne politicien bu ñu la falee duñu sa calculer do am ben pression Afrique da ngay gis bu ñuy fal benn politicien après di ko jaamu da fal benn ministre bu mu defal la sa dëkk wala benn maire après ngay ran këram pour mu jox la contrat waaye nga ran këram di ko def yàlla te yaa ko fal te moom sa mindaan la war a doon loolu fal Sonko ngir yàlla loolu am la rupture des politiciens nga xam ne di wax fii ay kii ñuy wax seen non non politicien du leen sax calculer la parole au au travailleur ñiy liggéey kase kase kase kase kase la la ñuy la ñuy waxal dëkk bi dootul nekk benn benn bordel nga xam ne Sénégal depuis 1960 ba léegi ak léegi nii c'est le bordel ay marabu yoo xam ne ñoo je n'ai rien contre les bala may day ñu Sonko il contre les marabouts il n'est contre la manière de faire de certains marabouts ne vous êtes parce que contre le marabout ah mais yow fekkee yow marabout boo xam ne yow tu

pour ses yeux doux pour ses pousse ngam. mais loolu Sonko du ci ànd bu ci ànd dañu dal ci kawam donc yeen vous avez peur donc Sénégal da nga war fal Sonko pour loolu non non. politiciens yi mel ay Farba Ngom ay Moustapha Cissé Lo taxaw fi ni wax kasse kasse kasse lañu def am ay milliards marabu yi ay wax kasse am ay milliards 24 heures sur 24 politique 365 jours sur 365 jours politique boo leen falee Sonko loolu day jaar day c'est la mort des politiciens lolu dootu amati atmosphère boobu dafay jógee on va vivre comme un pays boo xam ne tey jii mature politiciens yi bu ñu la falee par après sa bilan mooy wax balaa may dee Sénégal ñu naan moom kay programme bi avant politicien bu leen naa féq yéen falu leen politicien programme politicien bi ngeen di fal mooy lan mu ñëw seen koñ may leen 200000 ngeen séddoo liiru leen benn programme le programme ne vous intéresse pas fii kenn fi am programme muy Sonko te beneen affaire mooy beneen affaire bi ba léegi ci pour pour fal Sonko bi Macky Sall bu fekkee moom du def troisième mandat óor na Sénégal gépp na Sénégal gépp ne Macky Sall moom li ko li ku muy jox mu jox Khalifa Sall wala mu moo ko gënal tu vois mu jox Khalifa Sall moo gën a moo gënal mu jox Sonko parce que tey jii Macky Sall xam na ni bu Sonko bu Sonko jotee bu Sonko jotee nguur gi fii ah ak kii day kii day expliqué Aliou Sall day expliqué gars yëpp dañuy expliqué ay Mame Boye Diaw dañuy expliqué euh, borom 94 milliards ñëpp ñoom ñëpp ay expliqué ma Macky moom mën na def ni kii defoon Senghor ma def ni Senghor defoon kii wal ma toog pour ñëw teg euh, Khalifa Sall wala Idriss Seck parce que Idriss Seck moom c' est un c' est un habitué c' est un habitué des faits Idriss Seck c' est un moom ku digle cangaay da ngay set moom du bu fal woon tey ji du moom moo fi nekk daan détournement ak ne du fa sax jaar feneen lay jaar mais du fa jaar donc ñoom schéma politique boobu la ñuy def pour ay Sonko boo xoolee élection yi loolu tax élection yi loolu tax ñoom ñoom ñëpp ñu dem allié wu si Idrissa set ay ay kan mu di Abdoul Mbaye échange gars yi ay Abdoul Mbaye gars dem dem foofu allié wu tax ñu allié foofu noonu parce que xam nañ ne bu Sonko falu amul a pas de partage ay falu naa jox ma lii jox gestion sombre et vertueuse du Sénégal je xam pas si mais gestion sombre et nébuleuse Moi, am Sénégal gestion sombre et nébuleuse Moi, fi am Je liggéey jël ay milliards doon pousse bu rek milliards ay alma dégg ah 300 hectares 375 hectares hein, même si vous avez produire ay vous avez un terrain en quoi faisant monument mais doo ko bindal benn contrat ne ko ci bay ci en durée déterminée ni nga si bayee boo paree après nga delloo ñu ko léegi dafa leen teg loolu nga jox ko moom 375 hectares nii après moom mu dem wax ay sëtam ñëw jaay ka nekk ay milliardaire waaw ok waaw sama gars maa ngi dagg vidéo ba keneen bëggee yéen ñu laay bëggee